برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله قدره ومقداره عظيم أشهد آه، أن محمد maa ngi lay gërëm yal na yàlla fay la te dëgëral la sa barkeb bàyyi sa barkeb maam yi yal na yàlla jox la ko euh, soxna si itam jàppale nga ko xam nga dafay baax rek kenn tànn kenn na ne na defal waxtaan waaye jotaay bii li fi nekk ci ay ulama yi ak xuffaas li fi nekk ci ay professeur ak boromi xam-xam li fi nekk ci ay philosophe koo jox mu waxtaan rek dañ ko teral ci lool waaye ñi ko mënoon te gën ko ko mën ñu ngi fi ala kulli xaal ñu ngi tudde yàlla te di jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla dëgg-dëgg cantam cant bu ni mu ko waxee te gëm ni ko nar a waxee. gannaaw loolu maa ngi nuyu xoolamaa yi fi teew ak personnalité ak borom xam-xam yi di ci jiital nag Mouhamadul Mahi di suñu sëriñ suñu mbokk daara ñu bokk daara fii ci dëkk bi bokk daara ca bitim réew muy nekk borom xam-xam boo xam ne mayo yàlla la am ca loola ñu koy nuyu di ko ndokkeel di ci teg suñu doom suñu jarbaat al imaamul akbar imaamul akbar bu dee Cheikh Tidiane Ali Cissé am na mun xamit naa wax na ko balaa may ñëw buñ ne yaay imaamu daarul alxadara al ibrahimiya wala yaay imaamu kër saahibul fayda tijaniya loola kenn mënut a cee dolli dara wante nag daf ko daf ko yàqut fees na place bi jëpp ci jàng ak ci xam-xam waaye ak ci teggiin ak ci dox ak bokk ak dëgëral ko ak di dajale lépp loo xam ne ay maamam defoon nañ ko fi mu tasaare mu di ko dajale di jàppale bokk yi ak xarit yi di jàppale taalibe yi ak muqaddam yi maamam yëpp nag moom it ñu ngi koy gërëm daa bëgg a wax rek ne sayid al aziza alxafida li kitabillah ibnata cheikhina mawlana alxaj ibrahim mu di ki nga xam mooy sang bu tedd bi di suñu sang te nekk ku jigéen ku teel a wattu téere bi yàlla bi ja bëgg ko lool fonk ko Aïcha boo ko bettee ci këram rek ab jukki ngay fekk mu téye ko boo ko bettee ci këram yëgul na yaa ngi ñëw sax jukki alquran lay yore loolu nag la xarabata ndax fadlu min maadani xam nga wurus bu ñu ko tëggee mu rafet da nga koy yéem waaye boo xamoon mbell mu jógee doo ko yéemati ku ne ibnatu cheikh cheikh ibrahim bu mel noonu la xarabat ndax ku sori xam na loolu ku jege xam na loolu moom bàyyam mooy fi ñu ràññee ci diggante ulamaaw ñu weex yaram yi ak ñi ñuul yaram yëpp nag ci penku ak ci sow ci ndeyjoor ak bi benn jëmm boo xam ne ah teguma ko damay wax rek li am moom la ñu gis mu di doomi wolof ay maamam jógee ci Jolof cëmbal mu di wolof cent pour cent woo ay naar yu weex tàll ak ñu déggut lu mooy arab di leen firil alquran al karim ci arab loolu dëkk dëgg xar na baax damay wax ne waxoon naa ko ca tey ba ba ñàkk bopp rek waaye ku am ku toll noonu di firil arab yi alquran ci arab nga am ko ah walaay bu ko diwee nag diwee amoon kon mbir ma àgg na fa nag waaye nag dañu xaw a doy waar lu ñu ne jaru ko jaru kon nag soxna Aïcha ñu ngi la ndokkeel mbooloo mi bari na nit ñi wuy si nañ la sa mag yëpp wuy si la ak say rakk say taalube sama xaddame bàyyi ñëpp wuy si nañu la kon nag ñu ngi lay ndokkeel ci loolu yow la ñuy tuddee sa maam Hayşatı Cank, Domi İbrahim Cank Kıçı Canok. السيدة الحافظة والله دغا baax rek sàkku ci man naa ñëw jéem a waxtaan fii ci lu mel noonu dëgg la ba mu koy waaye xam naa ne ah waxit rek lay wax ndax la mu fi nar a wax yëpp gaa waxoon nañ ko wante nag la bu sëriñ waxoon rek bañ na sa am si yëf yi ci ay Hamza ay Hamza takraar boobu mu ne sama xeej bi day fi li may baamu di ko jam ci benn béréb du ko yàq kon yu itam baamtuwaat wax ci loolu sëriñ bi daal ci Mawlana Ahmad Ibrahim Hayatullah ibn Muhammad dama xool lu toll moom la ñuy tuddee Lamine Sanchoro Lamine Sanchoro mooy doom yi Samba Ndiaye Samba Ndiaye la moomu mooy Samba Ndiaye la Ndiaye di doom yi kon bu rumah jot ci waxtu Njaay moo doon buur ba Jogo en ci ban temps 1527 ba 1543 juddu Isa samaam kon mooy buur ba Jolof ci waxtu loolu ci benn koor bi man ci geneen wàll itam mën naa wax ne sa juróom-ñeenteelu mu am Touba numéro 2 la arab la bu sell bu arab mu ngi ci lii bi ñëwoon Jolof xam naa yaa ma naan kon bi ci indi ñees ma ne ñees day wax dëgg leen ko nag yéen kay bu ñu leen di askanee ca seen maam mu góor amoon na ci waalo ak ci ay bërëb yu nekk waaye yéen nag bokku ca yéen daal boo seetee ne seen maam dafa amoon jigéen bi mu defoon njëkkeem mu koy toppatoo affaire yi ngénte yeeg yooyu mu daldi di jur doom di jigéen mu tëddee ko ko dal ne koy jayle la ñes loolu yàgg na ci wolof tuddee yóbbaale sant wa loolu rek moo indi ñun ci nag li may wax histoire noonu la ko bindee Samba Ndiaye la moomu mooy ki nga xam ne la ñuy jël euh, yaayam muy Samba Ndiaye la Ñas te waroon a Samba Ndiaye la Ndiaye Ñas noonu la waroon nekk kon nag sant fekkee askanu baay la ñuy topp boobu ngeen moom bu fekkee ca mag maam yu góor ay dara ngeen di sant kon ay chérif ngeen ay arab ngeen loolu Cheikh Ibrahima Niass nekk na ci sama seede bi muy tagg Cheikh Tidiane ba ca kanam daf ne summa asli عبد الإله وأنتم أصله نعم ذلكم الآباء أنتم وآبائي وذلك فخري أنتم من داء داء القلوب الشباب كون لا لا لا ما أنا كون جاي فكي تبرم جيمن جاي سنما أمي بجول جوق دوا وي 1527 amma ñees yàlla def na ci barke lool waaye dafa am ñeneen ñu ko waaye euh, du seen bos yéen ay dara ngeen di sant rek wala jaay waaye loolu du tembi nag mooy jigéen ci mu war a mel lan moo di ay droit maanaam lan lañ ko war a jox bu boobaa yi moom it nan la war a mel mbokk jigéen yi tedd xam leen ne eh, jigéen bindeesu ko rek mu nekk fowukaay bu góor wala mu koy doyadal di ko néewal doole ca kanam góor ja wante jigéen kay nit la ku mat ak nitee di doomi ndeyi góor ñu bokk ndey ak baay amut jigéen ci dundu àddina da koy rafetal bépp bërëb bépp tund bu amul jigéen witt la maanaam béréb bu la dara nekku fa loolu bi ñu alquran di waxtaanal ci cosaanu nit fi muy jaar bayu màgg di bari dafa def jigéen mu nekk ci bokk góor ci ñu société li ñuy tudd ñu sos li ñuy société te jigéen moo di cosaan ndax mooy suuf mbir mu nekk ci suuf lay sax te jigéen moom moo di suuf genn xéewal la ku yàlla defal nit pour may ko ca mu mën a yokk mu mën a dund dund bu rafet loolu moo tax boo jàngoon alxuraan fi sax bi yàlla di wax naa ni yéen nit ragal seen borom bi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan foofu boo demee ci wala maawu taarix ak bindkat yi bind nañ ci lu bari euh, mu fasiru nuy njëkk yëpp ñu wax naan jigéen ñu ngi ko bind ci sàllu wetu adama moo tax mu am nu muy mel soo ko bàyyee jubbanti woo ko mu jëriñ soo ko jubbantee mu damm loolu siiw na téere yu bari bind nañ ko waaye niñ jëlee ci alquran ndax ndax ndax jigéen dañ ko awwaa dañ ko bind ci aadama bakkan bi ñu bind aadama ci lañ ko bind noonu la ko alquran waxee min nafsin waxida xalaqakum min nafsin waxida loolu lu muy tekki bakkan bi ñu ci la boobu lañ bind hawa kon nag nafsu boobu lu ma ma xalaqa minha minha ma ngi dellu cëm nafsu ba gis nga arab suy wax day am kalimaat yoo xam ne dafa leen di jigéenal ci amuñu jigéen am kalimaat yu muy góoral ci amuñu góoral am kalimaat yoo xam ne lu la neex nga wax masjidun mushafun hadisun xaatimun sayfun sulusun waqtun kooku دنكر góor lu fawwa damari ji ci dallu góor lay doon waaye yi jigéen anis asabiya ما قد جاء مؤنسة بلا علامة جانس مختار أرض سماء شمس نعل رجل ريح جحيم قوس حرب نار يجي اللي يدون فوج الغلا ربيع لدهن لونك منك مختار بعد من الطريق بعد من السبيل عندي أخي جيجين عندي أخي جبور لول دون غير لين كي بخلوا أي لكل يوم نبدأ بتأي يتقول ربكم الذي خلق بنفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا نساء lislaam euh, pareel na jigéen bu yàgg jox na ko ay droit buy jaayante dugg ci l'islam na jaayante boppam comme ni jigéen ci jaayoo na ko jaayante nag Omar ibn Khattab mu représenté yonent bi ci ak topp ak di ci lépp loo sharia tëral na ko la ca war góor war ko ca loolu tax يلا وخورنا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم كنا يوفقكم يبقى ci wàllu pas-pas ak gëm gaa yàlla moo góor ñoo ko yem wala ku li xam alquran gaaral na jigéen di ko tudd ci fukki saar ci alquran fukki saar yoo xam saar bu nekk tudd na ci jigéen wala lu ko ëpp tudd na jigéen ci bàqara tudd ko ci nisaa tudd ko ci maayda tudd ko ci noor tudd ko ci laxsaab tudd ko ci mujaadala وتدفت ci وتدفت التحريم وتدفت النساء وتدفت سورة الطلاق kon nag yàlla jox na jigéen ay droit bu yàgg mu nekk droit yu temm mooy am indépendant ci droit yi ci pas-pas ci war a jaayante dégg ak topp bu taxawee lépp loo xam ne charia na ko ko ay ay atteem naka mu jiitu woon ci ay ñu waxoon sànq wala kulli xaal jigéen l'islam gorel na ko boobaag léegi fukki siècle ji ak juróom ëpp na moo tax bu ma déggee euh, soixante-quinze Nations Unies indi benn ko euh, droit de la femme man yéen a gàttal jigéen ba ko alquran ak l'islam joxe ay droit man ngi ci quinzième siècle bi yéen ngeen di koy door a utal benn bés bu ngeen koy tuddee kon da a tardé l'islam raw na leen bu yàgg ndax li bala eh, ba l'islam ñëwagul dafa nekk jigéen dafa nekkoon ku ñàkkoon xëyma ñàkk wala ku suppiku suppiku daraja loolu histoire moo ñu ko jàngal histoire yi peuple yi fi jaaroon ak diine yi fi jaaroon ak waxee philosophe yi yàgg yi ñoo min Socrate ak min Aflaatoon loolu ñu jàngal lool booy nettali ci histoire boo demee ca Tawreet muy ancien testament jigéen du amul droit ci doon na baayam ci alalam loolu moo nekk ca tawraat muy ancien testament demal ci Injiil boo demee ci Injiil dafa ne jigéen mooy sobe ndax moo fi indi sobe loolu la ñu tuddee qissatul xatia loolu Injiil yi moom la ñu bind boo visité société yi société réew ak réew ak dëkk ak dëkk njakkal jaar Inde Inde boo demee Inde jigéen amul benn droit ci dund bu jëkkëram dee boo amul jëkkëram bu bàyyam dee amul droit ci dund gannaaw bàyyam dañ koy boole takkat ko bàyyi ji wala jëkkër ja lakk ko te jigéen musul daw ku sa jëkkër dee rek xam nga ne keroog ngay dee duñu daw duñ caalit te leneen takkee ak jëkkër ji rek leen and loolu moo fa nekkoon ak ay ñu ne pays yi nag asiatique yu bare la loolu l'islam ko dindi demal ci euh, société romaine iqriq muy grec nga xam ne philosophe yu mag yor ñoomin Socrate ak ñoomin Aflaton ak ak seen ndongo yi ñoom Ingils yëpp ci ñoom la ñu jàngee ñoom fuñ tegoon jigéen ñi dañoon amul droit ci jàng lépp xam ay chiffres yu muy calculer dundee kër gi rek waaye jàng wu kawe ami diplôme amu ci droit duñu am culture bu yaatu conférence yi amuñ droit ci teewee ko ndax culture générale lañ cay jëlee loolu société yooyu wax naa la Socrate noonu la doon def naka noonu Aflaatoon ndongom la dolli ci tuuti waaye mel noonu dañu daan xam xañ jigéen droit ci wàllu xam teewoo demoon nañ bee loolu ndax am du ñoom rek de ndax boo demoon ci société société arabe ya ñoom lu gën a bon la woon bu ak góor génnee àddina taaw bi day doon jabaram yépp bi ma fi yaayam yëpp ba lay doon rek moom taw bu góor loolu bi lislaam ñëwee ba alquran ne wala tankihu ma nakaxa aabaa'ukum dañuy door rek gën dellu gannaaw kon nag alquranul karim ah, joxutoon jigéen wala gune benn askan ku juddulee doom ci jigéen sax da nga dalla dalla mooy suul ko muy dund rek waqi suuf rek suul ko ba alquran di wax ne est-ce xanaa du ngeen fàttaliku idal mawuudatu suilat bés dana ñëw jigéen gune ji gune googu ñu dolloon ñu tekkal ko laaj ko lu taxoon ñu soob yonent bi saa sallam ñëw na nag jaa muhammadun bi diinihi alxanif wa shariatihi asamha bu mu ñëwee moom alayhi salaatu wasalaam mu daal di ne góor ak jigéen ñoo yem ci gawar a gëm yàlla وارا جامو يالا ولا جيب لك ريسبونسابيلتي شي كانم يالا اك شي كانم بوبل بي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن اولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا لسببتين كي ان جمعنا يسا يالا دا يكتي جيجين منك جكو غور شاي دمين يباري اي لف لف يباري باري رواتنا جي ادكاسيون مو يراتي ak ci dund yàlla jox na ci jigéen loo xam ne góor amu ko ca liy takkali loolu ba ñuy laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waay ne ko sama yaay ngi di dund sama baay ngi ana kan laa ci war a gën a topp mu ne ko ummaka sa yaay mu laajaat ko mu ne ko ummak sa yaay mu laajaat yoon ñetteel mu ne ko sa yaay yoonu ñeenteel nag mu ne gannaaw ga nag sa baay kon nag eh, gis nga ni ko sharia jiitalee moom jigéen ci kaw góor kon nag eh, waxoon naa ne l'islam jiital na yaay yi ca kaw bàyyee ci ngërëm ba di wax naan aljanna ma ci ron tànki yaay waxut bàyyi la aljanna xadis taxta aqdaami ummahat te loolu waxoon ko ca góor yi waxoon naa lu dul benn yoon te lislaam gënal na jigéen ci góor ci ay béréb yoo xam ne yu bari la ci ay lef mu di ay domaine yoo xam ne yu limu yoo xam ne lef bi duma may ma mën a tudd lépp jël na saar wu gudd ci diwaan yi juróom-ñaari saar yi jël na ci benn tuddee ko jigéen mooy saaru ñeenteel boo dalee ca Fatiha di compte saar yi ba ñeenteel suratu Nisaa da nga naan Baqara Ali Imran ah tuddu foofu góor de waxuñ mukk suratu rijaal wala suratu rajul donc saar bu gàtt la sax góor amu ko kon day tekki ne kon gënal na ko ci moom kon nag mbokk yi jigéen yi xam leen ne jigéen ah benn cër la bu dëgër ci développement muy màgg adina ak dund ci lu ko yàlla jagleel moom rek nag jox ko privilège maanaam xajjee ko ràññee ko ca kanam ci wàllu yar yar ak yore gune moo tax fattaaw yi dañuy wax sax ne am na ñu am doom ju ndaw yar ba doom ju ju ndaw ja yaay jàpp yore alhamdulilah foo jëloon خلي يعرض من يبين قلنا إصلاح النشء وتدبير المنزلي وترقية الحياة المنزلية وتأييد الرجل رجلي وتقوية عزمه للإقدام على كل شيء يا لتبنى كجل غل كجية نظم يبنى يوحنى قلنا نخ أمنا يلا نخجين قلنا أمنا دروح جين كرغي نخ دي كي دفرق تكبتي كرغي waxaaw Ibrahima di leen xas naan yéen arab yi laysat nisaaukum xulan wa jawahiran xas xawfal diyaai tusaanu fi l axqaaqi ndax jigéen kon am na droit ci génn naam am na droit ci génn ngir ay soxla yu jëm ci développement mu nekk ci kër gi wala mu jëm ci diine am na droit ci génn duñ ko teree mu liggéey jigéen na liggéey yii ndax lu waaye liggéey boo xam ne du ko ñàkkaloo ormaam muy xiibaam ak jigéenam du ko génne itam ci kersaam ak di diineem loolu la wax loolu la ñuy firee darura darura mooy nécessité bu fekkee si nécessaire jigéen war naa génn liggéey nag nécessité kon laaj na ko ci jamono moo tax war nañu yëngatu def dara du tere nag ñooy liggéey la euh, kër ga loolu am nañ ci misaal ci alquranul karim moo di ne gis nañ ne alquran wax nañuy gaa ne arrijalu qawamuna ala nisa ba tey suratu nisa la qawamuna ala nisa mooy ñooy aar jigéen ñi di leen toppatoo ñooy borom kër gi ca liggéey ba ndax kattan la ak responsabilité ba mooy kon nag mbokk yi jigéen yi ñu bokk yàlla xam leen ni jigéen wax naa ne si nécessaire mënut ñàkk dafa war a liggéey waaye bu mu fàttee ne moom jigéen la ci démarche am ci koddaayam ci ay waxam ak yeneen jigéen di góori jàmbur yi bu mu ko fàttee ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وكل عزاw kon nag mbokk yi ah, boo seetee jigéen ci taarix da nga xam ne war na mën a liggéey si nécessaire bu fekkee mënta ñàkk comme ni ngeen ko déggee ci xissa ñaari doomi Shuayb bu ya yonent Yàlla Shuayb jigéen rek la am mu am nag ay xarab bay bari ci lay arab yàgg naa dund ci sàmm Shuayb bu yonent la arab la yonent yi ci nekk arab ñeent juróom nag lañ ñi ci des ci bani Israël la bokk Shuayb bu nag mu arab la woon da ngay seet ku nekk fañ koy yónni ña fa dëkkoon lu ñuy lakk rek yonent bi ñoom loolu lay lakk kii ñu ko yónni woon Madiana Madiana mooy ci diggante Sham ba jëm ci boori euh, Saudiya tuuti ak mën na am sax mu frontière ak Yaman boobu dañuy tuddee Madiyan tey bañ ko fa yónnee amul lu muy ñaari doom jigéen ñu koy sàmmal ñaari jigéen doomi joom jigéen yooyu ba ñu sàmmee ba sonn ñëw ci teen bi fekk sàmm si wëgg nañ ba tëj teen bi ak xeer woo xam ne ay ponkal yu bari ñoo koy ubbi ñu toog fa nag mu ne seen gàtta ya ba Moussa ñëw fa ne ko waaye yéen leen luy seen gët mu ne ñun mënuñoo bëgg dañuy toog fii rek bu sàmm yi gongee ko ba dem jéew ne yeeg li taar ñu nangal ci suñu suñuy jur gi mu daal di jël xelu daal di ko dindil ci loxoom wëggal ba seen gàtta ya màndi mu dem nag wéeru ca garab ga daal di jublu penk nag gune jigéen yi ñibbi ndeysaan Moussa daal di sonn lool def na ñaari fan lekkul naanul gisul lu ñuy lekk mu tàllal ñaari la ko nag yàlla tey jëy loo fi acce loo fi wàcce woon ci la ñuy lekk soxla naa ko maa anzalta ilayya min xayrin faqir loolu la alquran di nettali ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يذهب الرعاء وابونا شيخ كبير kon lu ñu illa bi wa abuna cheikhul kabir te amul kenn loolu mooy seen illa ñu war a liggéey ba sàmmi kon illa bi mooy wa abuna cheikhul kabir kooku xasas la muy ñaar fukk ak ñett kon nag daroora mooy indi loolu mbokk dama leen bëgg a wax rek na kon mu ngi mel ni jigéen comme góor wax waxuma ne euh, kii moo gën kii wala kii moo gën kii waaye alxuraan li mu wax rek mooy yëmuñu yëmuñu nag du tekki moo gën su ma la neexoon bascule bii peese ñam bi ak bi peese or bu ci gën a dàq peese doo loolu mooy góor ak yéen ku ci nekk dafa gën fa mu gën waaye kenn gën a sa morom lu mooy ku gën a ragal yàlla ku gën a góorgóorlu soxna Aïcha kon loolu mu ngi mel nii yu mel noonu nga bëggoon ma wax ko ci eh, jigéen waaye nag xam nga man eh, ki nga xam ne mooy sa turandoo ci ñu fi indi loolu ak jim fi baaloon nga xam ne ci ndawam ci ay atam yu néew la jàng ba jeexal euh, téere yi ba dajal muy Mawlana Cheikh Ibrahim Abdullah At-Tijani moom mu ngi bokk ci usra Muhammad mu ngi bokk ci euh, xeet Seydina Muhammad moo tax ma ne ñoo di say euh, say moom moo jëloon xalibaam dal di ñu bindal ne summa asli waxoon naa ko ca gannaaw abdul ilahi wa antum asluhu ni'ma zakum al aba cheikh tidiane la doon tagg kon nag saydati al ustaza euh, maam Anta Diam noo ngi lay sant di la ndokkeel ci lu mel nii wax naa ne say càmmiñ yëpp ñëw nañ wax naa ne say doom ak say jërbaat ñu góor ak ñu jigéen ulama yi yëpp ñu bokk ci sa xeet ñoom ñëpp a teew nañu fii loolu itam foog ñu gërëm la ci sant la ci te ndokkeel la ci ndax yombute woote ci sa xeet ñëpp a ñëw wuy si la lii yomb ñu ngi la ciy ndokkeel te itam di la gërëm lee sa xeet ak sa mbokk yi nga xam ne ñoo lay uy si boo wootee ci loo xam ne ak topp yàlla rek la kon nag loolu na Cheikh Ibrahim wax naa jàngal na ay mag yar na ay góor yar na ay ndaw yow nag soxna Astu mosuloo dañ di bokk ci ñooña teel a wattu alquranil karim wax naa ci gannaaw ne ku la bett sa kër rek fekk la ab jukki kon nag loolu mooy fekk ne mooy tekki ne yaa ngi topp la bàyyi ya nekkoon ak la maam ya eh, nekkoon ci coono topp yàlla ak jàng ak jàngale ak yar doomu aadama ak dimbale kon nag sey ay suti jàmp ñees man xam naa ne xam naa ne waxoon naa am nga ay bopp ay jàng am nga ay doom am nga ay jarbaat am nga ay jegeñaar am nga sax ay bokk yu jigéen yu nekk ulama ak fuqaha ay aarifoona billah ñoo am kattan ci mën a taxawee lii nga xam ne mooy waxtaan bi nga daal di ma ko sant ndaxam maa nga woon Fuuta foofu laa xëy ci suba parce que dama amoon euh, dañ ma doon defal ziare ca seedo waaye terew rek yoon wi ñëw ndax coono bi nga am ci dama sant lii te am ñu ko mën fokk rek nu ma ne a def naa ñëw ba fexe teewee loolu waxoon naa ci gannaaw ne boo taxawee lu mel nii laa xarabata laa xarabata ba mu wax expression la boo xam ne Égypte dañoo mas a dajeeg Maroc seen soldat yi xeex ca frontière marocain yi jàpp juróomi officier égyptien yóbbu leen ba ñu wootee daa njamiat wala arabia war a daje Assane de di dem yóbbaale juróomi officier dal di dem jébbal ko Abdou Nasir ne ko topp ma la dara ay bokk la seytaane rekk la waaye mel ni suna sib na naa wan ma xam ko lool mu wax benn expression dama koy wax daf ne lii Assane di def ci lu baax la garabata fi dalika ndax fa durru min maatani ndax Assane de سدين تيمين ان ورسد ربويهم أبتارهم كم بلهم كبير كن ما مسيتهم لا لا لا غرابة في هذا لا فضل من بعدني وفي النهاية أخيرا لما بقوا وخركني وحجي لما لنا بقى فاتي يكني فمي لبوقع نبي الله ترى الله شقم ولي الله ترى الله شي ديني ñu ngi bàyyi ko ci ay arab ci wàllu baali wax naa ne ca Jolof yéen a ngi bokk ci doomi buur ya waxoon naa ko sànq muy taxee bu wér kon nag mbokk jullit yi góor ñi jigéen ñi sama wax ji bëri na lool man koy gàttal jégg nañu topp nañu axbaar ya topp nañu xibaaru waxkat ya bindkat ya ñu fekk ne seen baax gi ngeen baax seen tedd gi ngeen tedd du wut majj ngoo xam ne dafa bees talit la bu yàgg la du wut jadiid waaye bu yàgg la woon loolu maa ngi ko njëkk a dégg ci euh, benn rajo Sénégal bi ku naan Saïd Camara ak Samba Jabe rek euh, Samb ñuy wax seen i maam boo xam ngeen jóge ci buuru Jolof kon foofu laa ko tibbee ndax histoire loo fekkee wut boo fokk دنكوي وشكر لكم على انتباهكم وصبركم على الجلوس الطويل والاستماع الى كثره الكلام اسمحوا لي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان